mu ne ma dama am ay samay xarit ay investi investisseur waxoon nag man ba bëgg a ñëw Sénégal <clears throat> mais ñoom ñëpp fomm nañu mu ne ma li ci gën a doy waar mooy ci réseaux sociaux yi foofu dañuy méngale Sénégal ak Palestine di ko méngale ak Ukraine mu ne xamuloo sax Macky sàll tooñ bii ñu tooñ fan la yem yàgg naa leen a wax ne dafa am problème de servo gëmu leen ma waane loolu bis bu jot mu ngi koy confirmer y a quelque chose boo xam ne mii ci bopp bi doxul parce que bu doon nit nii nga xam ne moom lay ngoyee ci pouvoir bi nit du ko def mukk mm-hmm. Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko Abdoulaye Wade defu ko te ñoo ko gënoon a taxaw ci réew mi kon y quelque chose qui cloche li ko dal ñun teguñu ko teguñu ko ko moom moo dem choisir un poulet de chair politique nga xam ne il est simplement habitué salon feutré et lambris doré même dans sa manière de parler vous constatez qu'Amadou Ba n'est pas un homme politique il ne peut pas gagner une élection j'ai dit à mes amis qu'il est le candidat de Saint-Tropez du caviar et du homard il connaît pas le Sénégal je me ndax dana lekk cere sax c'est un petit bourgeois xamul li paysan yi di dundu xamul lu sàmm yi dund xamul lu baykat yi di dundu xamul li nga xam ne moom la nappkat yi dund xamul les jeunes yi dundu celui-là nga bëgg ko pousser pour mu nekk le président de la République mais c'est impossible les forces sont là les forces sont le futur pouvoir est la ñii ñoo xam réew mi ñii ñoo xam Sénégal ñii ñoo xam méttitu askanu Sénégal alors li mu bëgg a def nag madame le premier ministre wax na ko sànq appel à un coup d'état militaire la Macky Sall woote Mais s'il le fait, c'est qu'il est dans l'incapacité de gouverner le Sénégal. Le Conseil constitutionnel devrait déclarer Macky Sall incapable de gouverner la Sénégal et le destituer. Parce que c'est grave ce qu'il a dit. man su ko waxoon ñu jàpp ma premier ministre su ko waxoon ñu jàpp ko moom mi ngi koy wax ay militants mi ngi wër di ko wax ñu leen di béy ñu dem seen yoon. Ils veulent gaboniser le Sénégal. Non, ça ne se passera pas ici. Un coup d'État avec la complicité de forces de défense et de sécurité, notre armée ne l'acceptera pas. Ils ont une devise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Macky ne va pas vous déshonorer. On le sait, vous êtes du côté du peuple. Il n'y a qu'un seul discours qui vaille. Et le 2 avril, Macky Sall n'est plus président de la République du Sénégal. Il faut qu'il dégage et qu'on élise celui qui aura été choisi par le peuple. Rien d'autre. Pas un jour de plus, pas une seconde de plus. Et j'en profite encore pour toujours parler à la communauté internationale. C'est vrai, vous réagissez, mais ce n'est pas suffisant. Il a fait un coup d'État constitutionnel. Il incite à un coup d'État militaire. Pourquoi vous ne le sanctionnez pas? Dans tous les pays, particulièrement de la sous-région, si un coup d'État est effectué, que ce soit l'Union européenne, la CEDEAO, les autres organisations internationales, ils n'attendent pas qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire. Les réactions sont immédiates. Macky Sall être sanctionné de façon précise par la communauté internationale. Et c'est Ispire qui sont autour, de lui, qui l'incite à appeler à un coup d'État militaire. Si ce n'est pas cela, nous ne pouvons pas penser que vous êtes des amis du Sénégal. On reconnaît ses amis dans la douleur et la souffrance. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dérober parce que c'est devant vous, devant vous, à aussi et vu de vos observateurs que des jeunes sont abattus, qu'une première ministre est arrêtée, que des femmes sont violentées, que des handicapés physiques sont torturés. Non, vous avez bien vu de quoi il s'agit au Sénégal. Vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas ne agir. C'est ça que nous vous demandons, rien de plus. Parce que vous le faites ailleurs, ce n'est pas de l'ingérence, mais c'est la défense de principes démocratiques universels que vous défendez à travers le monde. Le Sénégal n'est pas une exception. Quand il y a